le maa ngi lay gërëm bu baax chaque fois bu ma ñëwee Thiès du ma sentir ne ñëw fu ma dëkkul parce que foo nekk ñeme naa fa foo nekk maa fa nekk maa ngi lay may nuyu gouverneur bu baax ak préfet di nuyu l'honorable député a Gueye xamante ne moom moo jiite commission bi xamante ne moo yor wàllu santé action sociale ak yooyu mu ànd ak délégation wu ay parlementaire ñu gunge ñu si mission bi ñu def Thiès parce que ñëpp xam na ne assemblée dañoo am benn mission d'évaluation et de contrôle des politiques publiques moo tax di ànd ak ñoom de temps en si mission yi terrain bi ñu seetlu li ñuy votel si budget ñun naka lañ koy mettre en baax na moo tax euh, l'honorable député Awa maa ngi lay euh, remercier si sa disponibilité yow ak sa délégation di nuyu madame la directrice générale de la santé boo xam ne xam na bu baax Thiès di wax ne nag pour ba a guddal journée médicale bi maire ñetteel ñetteelu yoon a ngi ma koy fekk te xam naa ñu ngi si juróom-benneelu édition wolof lu wax ne lu yàgg dëgg la mais fa mu ko defee dafa am solo parce que santé dafa nekk compétence transférée commune yi ak ville yi yore ko état bi yor si pàcc di leen si jàppale mais na gëm ne président la république gouvernement ministère de la santé ñun ñëpp ñu ngi si borom pour jàppale ko mu réussir mission boobu parce que xam nañ ne soxla askan bi moo ko soxla mbir dina toll foo xamante ne ku nekk lii tax ñu régler problème yaa ko yoral sa bopp te ñun foofu lañ toll bu sénégalais bu nekk ne woon du ma tàggoog sama masque lu ma fukki fan ak juróom waar ñaar fukki fan ak benn masque bi du jóge si man benn yoon sénégalais yépp décidé def ko mbas mi dana fi jóge bon dëgg ñu ngi lancer un appel demander sénégalais yi ñu jàppale ñu si loolu respecter les mesures barrières mooy masque bi mooy di raxas loxo yi mooy aussi di dandante au moins loo xamante ne benn mètre la beneen bi nag mooy tabaski bi ñu jëm tabaski déplacement yi day bëri ñu bëri dañuy bëgg a tukki dem defi tabaski bi feneen mais puisque risque bi mooy que ne ñu saaw jàngoro ji mu dem foo xamante ne new fa woon message bi may lancé mooy ñu fexe ba ku nekk fa nga nekk actuellement nga toog foofu fete fa tabaski loolu message bu ñuy lancé la parce que ñu mën a tax ñu maîtriser risque wu propagation ak dispersion wu feebar message boobu laa lancé depuis Thiès di ñaan yàlla Sénégal yëpp dégg ko pour que ñu am plus de chance pour am ay victoire si combat bi xamante ne ñu koy combattre contre la Covid 19 bon monsieur le maire maa ngi lay remercier bu baax a baax. di la wax ne donc euh, vraiment Thiès nekk na dëkk boo xam ne saa chaque fois mu ñëw toog sa bool rek dana nekk loo xamante ne lu ma neex maa ngi lay remercier bu baax jërëjëf. mooy masque yi nga xam ne euh, tayeeru Thiès ñoo leen defar mu tolloon ci deux cent cinquante trois mille masques yoo xam ne yëpp Thiès lañ leen defaree mais respecter normes yi tamit parce que dañoo dem laaj ba ñu wax nañu baax na. ñu defar leen ci anam bii euh, Lat du Ndaw moom moo yore woon projet bi euh, di ko doxal ba mu àgg ñu jël cinquante mille yi jox ko élèves yi ak daara yi deux cent mille yi ñu yeble ci quartier bu nekk jaar ca délégué de quartier ba ménage bu nekk ñu jox la cinq